nekkul turam turu dëkkaam bu sell bi la wala turu benn jëwrinam nañ rek jël dal di koy tuddee seen ay bërëbu liggéeyukaay Cheikhul Khadim wala Serigne Touba di inspiré daankatu doole yu bëri ak bépp domaine boo mën a nekk la gi nga xam ne taalibe yi am nañ ko ci Serigne Touba moo waxal bu ñu jël seen ay bërëbu liggéeyukaay rek di ko ko jagleel. xam nga ñun moom daanaka boo xoolee si mouridisme lañ juddoo quoi bon daanaka environnement boobu lañ juddoo si lañ yaru waaw boo xoolee nag sunu wasila si nga xamante ne si kooku lañ jokk mooy ki nga xam ne mooy sëñ Daam Abdourahmane Lo bi nga xam ne mooy waa Ngaabu. waaw dañoo am si moom mbëggeel am si moom cofeel am ci moom yaakaar te gëm ko waaw gëm gi ko gëm moo waral lépp fu ñu munti nekk. dañ ko koy tuddee baa ñu jagleel ko ko. quincaillerie cosmétique atelier mécanique wala bépp structure bu mu manti doon mu mel ni rek ñoo ngi ciy gis seen bopp waaye itam ñoo ngi am ay clients ndax turu jëmm ku sell gi ñu tuddee seen bërëb yi. a nga gaay bu ñu xamee bayfaal nga murit nga borom baax nga rawati nga nekk jullit gaay la amatuñu xajal seen fii ñëpp xam nañ daara la fii kër sëñ Tuubaa la ñu ko tedd ki rek la ñu wër fii kër sëñ Tuubaa fii ku fi ñëw da ngay mun nañ ne loolu tax na sax ñu bëri xam nga bëgguñu ñu bëri jege si ñu ñu bëri daw ñëw si ñun mais parce que du question de dara mais ku tedd ki la ñuy séen. waa mais xam nga matière de liggéey moom boo ciy gis yokkute rek sant yàlla la daal li ñuy ñaan nag suñu borom gën a yokk xéewal li mu gën a saawaan baawaan waaw ndax ñu ci bëgg xëy na doo ko am waaye nag comme yaa ngi jëm kanam. dañuy mu gën a taw féexee rek. mouridisme nag nekk tarixa boo xam ni dafay yokk koom-koomu Sénégal rawatina nag si jamono jii nga xam ni ñoo ngi ci waajtaayu lu tuubaa